néew di doole yëpp dafa may ñiy xañ président de la république mi yor àdduna xaalis mënul gestu sénégalais yëpp waxuma ak benn PDG Doro Gueye li mu doon am as tuut mu ngi ko doon sekk jaamu yàlla yi demal si jàkka yi demal si jumaa yi demal fépp ci biir Sénégal kilifa diine yi dooro Gueye mu ngi doon dem di yëkkati as tuutam daan jox kilifa diine yi kooku tey bu nekkee si jafe-jafe lu waroon néew di doole bi lu waroon sénégalais bi mooy ñaanal sunu borom yàlla teggi nattu bi mu amee rawatina nattu boo xamante ni mën na dal ku ne man may ne alhamdulilahi rabbil alamin man PDG Doro Gueye damaa jël sama doom bu ma jur ku góor ñëw tuddee ko ko parce que lan parce que nit koo xam ne bu ma toogee jàkkaarloog moom di waxtaan du ma dégg baatam faaw ma def nii sama nopp ne ko grand lan nga wax nit koo xam ne bu jàkkaarlook yow nga nekk xale bu tuuti buy wax du siggi xool la day sëgg ndax lan ndax kersa bi nekk si moom ndax yar bi ñu des si moom ndax xam àdduna bi ñu def si moom mooy du siggi xool nit te bëggul defaral nit fukki dërëm nit kooku taxaw sax ne ko jërëjëf kooku nitu yàlla la doomu aadama nag même ba ci ay walliw ay dog-dog daan na leen dal ci àdduna donc PDG Doro Gueye mbindeef la yàlla mi bind jaamam di teg ay nattu ay jaamam teg na ko PDG Doro Gueye da koy nangu parce que ñii nekk tey si ay jafe-jafe PDG Doro Gueye gënu leen ñii nekk tey si ay tolof-tolof PDG Doro Gueye gënu leen doomu aadama la doomu Kaolack la dakaar ñu bëri xam nañu lu mu yëngatu social mais tey gis nga ndeysaan yenn journaliste yi ñi nga xam ne dañ doon dem sax si PDG Doro Gueye seen i kilifa di ñëw si moom di ko sàkku pour mën a fay seeni i courant wala di mën a sàkku pay mën a fay seen i internet tey PDG dooru Gueye yëkkati jox seen i journalistes yooyu ma nekk si ay témoins yenn presse yi nekk Sénégal yu bëri tey ñenn toog seen i plateau di naan dañuy yëkkati ay kàddu jëmale si Doro Gueye seen ay kilifa yàgg nañ ñëw si PDG Doro Gueye mu yëkkati pour fayloo leen njëgu sax salaire journaliste yooyu nekk foofu te journaliste yi suñu xam PDG Doro Gueye bu dul moom weer bi duñu ñu fay seen salaire donc pour man en tant que sénégalais en tant que jullit en tant que nit koo xamante ni li nga yéene sa bopp war nga ko mën a yéene sa prochain doo gis kooku nekk dans des difficultés boo xamul de un nga war a maandu boo xamul de deux nga gis nit ki jëkkëru jàmbur la papa jàmbur la mu ngi dans des difficultés nga war ko ñaanal li ko dalde de yàlla na ko ko borom bi teggil su nu mu gën a gaawee mu ñibbiwaat si njabootam loolooy rôlu jullit loolu mooy rôlu sénégalais mais ku nekki toogee wet ñii di si wut buzz ñii di si wut vue ñii di si wut ay abonnement ñii di si wut xaalisu YouTube pour après dem lekk ku ne di si ubbeeku kii naan Doro Gueye moo doon fay ay nit ñuy saaga Sonko barki alxuraanul karim barki salaatul fatiha man en personne li ma concerné tey jii bu ma toogee internet saagatuma PDG Doro gay bokk na si ñu tax bu ma toogee biroom lan la may wax kali ku la saaga sax melal li déggoo saaga bi defal ni man mu ne kali xanaa gisoo ma man lu ne laay dégg est-ce que mës nga gis ma tontu lii la doon dugal sama nopp Kaliphone bu ma doon dégg waxu nit ñi du ma toog ak yow lii la doon dugal sama nopp parce que dafa may xaritam yoo doon xam ne dañ ko ne waa Doro Gueye Kaliphone fu mu toogee di la sant di la gërëm ba tey sax di la tuddee doom booy bi kat la waroo toog ak moom dégg na ko yàgg na. mais dafa ne tey nit ñu baax ñi ñoo war a jël ñi nga xamante ni danoo bokk si société jékki-jékki nar a dëng génn société bi tuuti ñu jëlaat leen dugalaat leen ci société bi man Doro lan la ma doon wax Kali boo gisee nit kuy saaga sax. woo ko nga ñëw présenté ma ko mu bàyyi saaga bi mu ñaat si société bi yéen dañu leen soxla société bi barki alxuraanul karim ku dee ak sa bàmmeel tey dooru Gueye bi dina la lakk ay sénégalais yi nga xamante ni ñu bëree bëree bëri nit koo xamante ni nitu yàlla la kenn mësul gis Doro Gueye mu ngi xuloo fii ba ca Kaolack bi mu juddoo ba Kaolack bi mu màggee kenn mësul gis dooru Gueye mu ngi si ay waxu kasaw kasaw kenn mësul gis Doro Gueye ci plateau tele muy animé émission mu naan Macky sàll nii wala Sonko ne mësul yëkkati kàddu gu ñaaw jëmale ko si usmaan Sonko bañ na ko ba këram ak këru usmaan Sonko mën na ne ñoo jàkkaarloo. boobu bu génnee loolu la ma doon wax mu ne ma Ousmane Sonko de ndeysaan bu ñu dajee nii daf ma ne eh booy naka mu naka seen gars yi naka muy waxtaan ak Ousmane Sonko. Doro Gueye musul am problème ak Jomaay Fay ba si élection yi ñu génn nii am na ñoo xamante ni si Jomaay Fay la ñu bokk barki yonent yàlla Mouhamed Doro Gueye jël na si alalam ñëw jàppale ñooñu parce que Doro Gueye xoolul Jomaay Fay xoolul Sonko xoolul Macky Sall Sénégal la xool Sénégal jàmm Sénégal salaam pour bépp sénégalais bi nga xamante ne investir na ci biir Sénégal nga mën bu dee jaaykat nga nga jaay si jàmm. bu dee woykat nga nga woy si jàmm bu dee tànn beer nga nga tànn beer si jàmm lépp loo xamante ni jàmm la woon si loolu lay dox. tey bu ngeen demee prison ba la ca Ndakaaru Njaay Jal jóg ñi doon ñëw si kaso bi bu njëkk xam nañu bu ñuy wax ak prisonniers yi nan lañ doon waxee prisonniers yi ku ne day toog caka caka caka caka caka caka caka caka comme ay seeku doo dégg parloir yi nekk foofu fi ñuy waxee allo nga toog di wax PDG Doro Gueye moo ko fa def. tey boo demee si yeneen prison yi bu ñu amee ay télévision bu ñu amee ay matelas Doro Gueye moo yërëm prisonniers yi ne prisonniers yi de fu ñuy tëdd métti na lool mu dem yëkkati ay matelas dem may ko ay prisonniers pénitencier yi duñ ma bàyyi ma fen PDG Doro Gueye moo doon toog jël jox ay nit bëggu si sax feeñ ñu dem camp ñu xool jigéen ñi nga xamante ni ñu ngi si ay tolof tolof mu taxaw ñooñu PDG Doro Gueye moo doon xool ay nit yu nekk cent amuñu lu ñu jëndee avocat mu jël si lu ko yàlla dénk as tuut mu fayal ñooñu te xamul ñooñu si ndey xamul ñooñu si baay ñii nekk tribinal mën nañ ma baay ma seede ay pénitencier garde yeeg policier yeeg même da doon jékki-jékki dem police centrale gaare otom bu ñëwee xool ñenn lañ fa def garde à vue ramasse mu jékki-jékki dégg xaalisam ne jëndal leen ñuy reer parce que la plupart nit ki mën nga dox vingt deux heures vingt trois ñu ramasse la say mbokk du ñu yëg doo am loo lekk Doro Gueye day gaare otoom jël xaalisam jënd ay sandwich ne ñi nekk si kaaf bi nii wala ñi nekk tey si violon bi nañ leen jëndal reer kooku àdduna di dox yàlla sunu borom teg ko natt natt boo xam ne jombul kenn parce que bépp nit bu amee baqandi dund fi ak génn goo àdduna lu ne mën na la arrivé si kaw suuf gis nañ fi ay imaam imaam yu jàngale alxuraan jàngale nodd jékki-jékki rey nañu seeni naayim gis nañ ko fi dem ba am soixante-dix ans jël paaka jam seen naayam ñu ne imaam ba rey na diw looloo gën a métti fop munu doon munu loon ñàkk gis nañ fi tey ay imaam di dóorante ba kenn jam nit ki mu dee gis nañ ko fi gis nañu nit tekki-tekki ne imaam la day jàngale daara day jàngale alxuraan seytaan dugg ko ba taalibe yi muy jàngal alxuraan mu def le daka sudul noonu ba tey jii muy si kaso bi looloo gën a métti fop lii